mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu nu ngi leen di nuyu yéen ñi ñuy teewlu ci seen site Senego lu jëm ci wàccaay màggal gi nag. ay bés bu ne rek ñu fas yéene leen indil euh, lenn ci reportage yi tey nag ñu féetoo ci wàllu mbindum sëriñ bi ndax sëriñ Touba dafa wax ni karamati xattu yat yi maanaam miracle yi ma sunu borom defal mi ngi ci mbind mi ba tax na tey nu ngi seeti kenn ci jëwriñ ñi nga xamante ñu ngi fii ci booru jumaa ji ca Touba féetoo moom wàllum njaayam xasiri gi nu waxtaan ak moom rek ci wàllu mbindum sëñ bi ak wàllum njaay mi ak wàccaay màggal gi naka lañ ci euh, euh, maanaam jublo sëriñ bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi lay ziar nga fàttal ñu tur wi waaw sama tur mooy Mourtada Diagne kii ma feggool mooy sama jëwriñ muy suñu njiit fii di Abdou Aziz Waaj Abdou Aziz Waaj fii eh, maanaam maktab bi ñu tuddee ko maktab Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu Xaadim Rasul sallallahu alayhi wa sallam ngeen féetu wàllum jaayam xasida gi te Sëriñ Tuubaa wax ni samay may mooy mbind mi eh, naka ngeen koy dundee rawatina ci wàccaayu màggal Tuubaa fukki fan ak juróom-ñett ci safar giinu jëm sëriñ bi waaw jërëjëf sëñ bi loolu am na solo lool ni ñu koy waajale mooy comme ni nga ko waxee rek eh, sëñ bi dafa wax ni xasidat yi faaxat xasaayidul kiraam wali taquuda abadan xayra maraam sama xasida yi eh, kawe na yëpp xasida xasida yëpp a tedd nag waaye sama yooyu kawe na xasida yu bëree bëri waaye ci loolu yi tamit la suñu borom moo matale ay xememteef yu am solo lool lool lool ba tax na loolu moo waral tey eh, dëkk bi foo ci dem rek rawatina jumaa ji Euh, li ko wër lépp ay xasida lay doon te xasida gi euh, comme xam ngeen ni niñ ko sëñ bi waxee am na yoo xam ne nii euh, ñu ngi koy gis waaye am na yoo xam ne ñun gisuñu ko am na yoo xam ne suñ sëñ bi da koo bind maanaam nëbbu ko nëbbuñu ko waaye yi nga xamante ni suñu borom dogal na ñu di ko gis ni ñu ngi koy wecceku ni comme ni ngeen ko gisee nii ci biir noon waaye am na sax yoo xam ne nii jotaguñ ci ndax sëriñ bi comme géej la li mu bind kenn mënu koo xam du yàlla dañuy toog léeg-léeg ñu ñuy ñëw fii di ñu laaj xasida goo xam ne ñun euh, wax dëgg yàlla xamaguñ ko dañuy sàkku itam képp ko xamante ni ni ab taalibe la fu xasida ak Sëriñ Tuubaa ne goo xam ne nii euh, gu gu taalibe yi euh, yëragul la rek mu jàppandal ko lool day nekk loo xam ne lu am solo la waaw. sëñ bi wàllum maanaam wéccee ko xasida pour bañ a wax jaay ndax ëpp naa wax ndax léeg-léeg da ngeen ciy gis seen i bopp. waaw da waaw dañ ciy sant yàlla bu baax a baax bu baax a baax waaw dañ ciy sant bu baax a baax ndax euh, comme euh, taalibe yi ñoom dañu xër ci sëñ bi euh, ba tax na maanaam même bu dul sax dañuy ñëw bu baax a baax di ko jël ndax xër gu ñu xër ci xasida yi sëñ Tuubaa ndax am na ñoo xam ne ay lim lañ koy def ngir bëgg xër rek ay lim yu bëree bëri am na ñoo xam ne dañ koy eh, def limu arafi mooy muy 28 eh, ñaar fukk ak eh, juróom-ñett di ko jàng am na ñoo xam ne dañ koy def ay juróom am na ñoo xam ne fu leen suñu borom xiir ci ñu def ko lëmu xasida yi dañ koy def ay lim di ko jàng loolu moo tax daanaka toujours rek dañ ci gis suñu bopp bu baax a baax. ndax dafa am ay secret yi ci nëbb ba tax na nit ñi di am xër jëm ci xasida yi. waa am na xas secret ngi ci ndax xasida yi sayxul mën naa nekk rab bi ndax ak xasida rek boo ko toppee. mën na laa uh, yóbbu ci foo xamante ni uh, macha allah uh, danga naan lii doomu adama sax munu ko ci man te fekk na loolu Serigne waa moo ko def ci biir xasida yi wallaahi laasim loolu am ah, naa fi ñuy jeexalee laaj gu mujj gi rek mooy tey boo nu doon tànnal ndax xasida yëpp am njëriñ. waaye boo ñu doon tànnal benn xasida rek mm. laay ñu ci biir rek nga may ko mbokk yi teewlu rawatina mbokk taalibe bëgg a waaj màggal ngir bëgg a jëriñu ci sëñ bi. waaw loolu mooy xasida gii ñu tiim ni mooy Matlabul Fawzayni dafa am bayit wu am solo woo xam ne dama cee dugg lool loolool mu naan waj al ilaahi maskani Touba abad mislas miha bi jaay xayri men abad yàlla nanga def sama dëkk bii di Touba ba faw mu mel ni turam wa ci àjjana ndax dañ ñu Touba sajaratun fil janat yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax euh, garab googu ci àjjana nag sëñ Touba moo ñaan suñu borom defal ko dëkk bi mu mel noonu euh, dëkk bi nag maanaam buñ doon euh, téere bi buñ ko doon jàngat ci lu bari ci biir Euh, maanaam sëñ bi noonu lool lool noonu la doxalee dëkk bi ndax lépp loo xam ne nii euh, mu ngi am ci dëkk bi rek euh, ñu bari ci biir xasida gi la ñuy xool di ko di ko def ci biir dëkk bi muy wàllum ay dëkkuwaay muy wàllu ay daaraak muy wàllu lépp lu mën a doon rek loo xam ne nii doomu aadama dina ko dund ci kaw suuf ci biir téere bi nekk na ci moo tax ñu tuddee ko Matlabul Fawzayni càkkoog ñaari texe yi xam nga ñaari texe moom boo ko texee rek macha allah muy texe àdduna tego texeeg àll àllaaxira loolu la tudd euh, téere bi tudd sëñ bi euh, loolu moom ci gàttal euh, waaw kay waaw kay kon ñu bàyyi la rek nga may ñu ab yóbbal mu jëm ci mbokk taalibe ndax ku xam na ni mm-hmm. màggalu ren bi daawul mel màggal yowoon rawatina tawat gi fi am ñu sàkku yéen ñi féetoo xasida mu dig ñaan rek ñëpp wér waaye ñëpp am jàmm daal ci ni ko sëñ Muntaxa diglee ñu koy nuyuwaale di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wër sëriñ Muntaxa Basiir yàlla na fi yàgg loolu te wër kon ñu bàyyi la rek yóbbal geeg tàggatoo amiin foofu la ñuy gis ci rek di ko ñaanal wér ndax war nañu yoon wi ndax bu ngeen gisee ci image am yëpp rek royukaay la foofu mu ne rek foofu la nekk mooy di takk ay masque am nga masque bi yow yow sax yaa ni ma dindi ko ndax comme nii rek ni mu demee waaye ñun toujours foo ñu gis ñu ngi koy takk ngir roy ci Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye itam euh, euh, roy ci euh,